KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer maa ngi tudd Mamadou Ciss dëkk kilomètre cinquante ñu gën kaa xamee MPC. donc comme ni ma ko waxee ci kàllaamay nasaraan xam naa am fit nag weesuwut ñëw dëkk bu dool ni Kër Moussa di fi làkk wolof ndonte séeréer lañ dégguñu wolof mais nañ ko jéem a tënk rek xamal leen ne ñun li tax ñun ñu ñëw fii mooy que ne étudiants yi dañ leen a génnee pour lan ndaxte fayatuñu suñu loyer bi nga xam ne moom la maire jëloon pour étudiants yi. té loolu du ben yoon du ñaar yoon ndax dañ naan xel bu dal moy jang étudiant yi ku xamul won kan lan moy UIC ku xamul won luy ordonnance d'expulsion ku xamul won luy mise en demeure xam nako depuis 2019 ak léegi liñ ci jot xajul fi ci ay keuyit bu don pour boyal mën nañ fi tal fi yëpp chaque jour ñu ngi fëgg suñuy porte dañ leen di génné récemment génné nañu presque génné won nañu man ma wo UIC ne ko y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas là-bas nous ñun avec concerté avec les autorités ma envoyé mais par la suite par la suite je vous rappelle que par la suite deux jours avant élection jeudi vendredi samedi doxoon ci dimanche élection locale yi le directeur de cabinet du maire mu dem ba agence immobilière pour li parce que mise en demeure ordonnance d'expulsion et tout agence ba avons lañ leen wax a ma

mu d'accord ci loolu pour vous dire que nii indemnité d'occupation lañ fa am waa diggante boobu ak léegi ñu doxaat ba amelaat leen deux mois ci kaw négociation yooyu noonu ñu amelaat leen encore deux mois récemment ñu envoyé waat ñu mise en demeure pour wane ñu ne dinañu exécuter ordonnance d'expulsion bi ñu génnee étudiants yi dans un bref délai mise en demeure bi jeex na démb envoyé naa ko autorités yi fi nekk yëpp ba ci maire ci boppam envoyé naa ko ko mu accusé réception envoyé naa ko ñëpp. mais ama ma grande surprise agent immobilier bi si matin la ma woon ne ma sa yi kenn woowu ma ci kenn waxu ma ci dara lu ci jëm ñun nag sonn nañu sonn nañu ci na mbaay te yéen élèves yi ci ngeen bokk parce que suba ñu ngi leen di ñaanal ngeen nekk étudiant te ñun li ñu dund ñu yàlla ngeen dund ko bari na ñoo xam ne abandonné nañu te ba léegi nii mënuñoo continuer seen étude ba amuñu fañ la ñuy loger appartement biñ ñu jëlul ñeenti néeg la. ñeenti néeg yi néeg bu nekk ñaar fukki étudiant ak lu topp mairie bi dem nañ ba foofu noonu ñu won leen néeg bu nekk ak condition yi nga xam ne étudiants moom la ñuy dund surtout ci feebaru mbas mu bari bii nii ñeen fukki nit ci benn néeg est-ce que loolu jaadu na. mais am wax ne am na ci yéen ñoo xam ne dañ faa nekk te duñu ay étudiants looy tontu ci amul kenn ku fa yeewoo koo xam ne du étudiant bu fi amee ngeen wax ma ko amul liste baa ngi nii étudiants yi sonn nañu amuñu subvention. étudiants yi seen mille francs yi par weer ci la ñuy fayee étudiants yi feebar ñaata yoon la ñuy yóbbu nit hôpitalu Grand Dakar étudiants yi la ñu gën a xàmmee très bien mu ngi noonu ci la bokk étudiants yi hôpital hôpital loolu kan moo ñu koy jox suñu bopp mille ñooy fayal suñu boppu ndox ñooy fayal suñu boppu courant recherche yi étudiants yi di defee ci wifi bi ñoom ñoo koy fayal seen bopp eau de javel bi gën a tuuti étudiants yi ñoo koy jënd. lal yi nga xam ne étudiants yi fan la ñuy tëdd lal yi nga xam ne fan la ñuy tëdd mel ni sardine dem na ba sardine lañ koy tuddee ñoom ñoo koy ñoo ko jënd maa ci àndaloon ak président commission sociale bi ñu jënd lal yi bu ci nekk cinquante cinq mille étudiants yi deewuñu waa léegi ñun nan la ñu mën a contribuer ci développement éducation ci commune bi ku amul loo photocopier benn document nga xam ne parfois nga gis benn étudiant boo xam ne dina def trois mois yoo xam ne du mën a génne trois mille fay ko ñun sonn nañu. kon li ñu bëgg moy ñu taxawuñu am na loo xam ne dootuñu ko nangooti dootuñu nangu ñu ñuy jox ay naxé mbaay ñukoy wonnu di bëgg dé dee dootuñu nangu étudiant yi ñu leen di nax daño dañ ne budget bi éducation ci la bokku ñun buñu génné ci éducation lan mo ci des suñu rak yi di ñu sétan bu gisé gisee étudiant bu dem dellu est-ce nañ am courage su continuer sen école kon lolu ci teunk lolu lañu amone mo nu metti motax ñun ñu ñew fi wane suñu naxar Mhm. wax ngeen di fii ak ay diir bu gàtt bu fayal dañ ne mhm. moo li ñu jàpp ne mooy li ñu jàpp ne moo mën a régler problème bi c'est simple mooy ku ñu jox mise en demeure ne la da ngaa war a génn samedi lu la war leneen lu dul nga jóg nga dem ci agence ba ngeen négocier nga fay li nga leen yoreel ngeen teguwaat ci yeneen engagement yoo xam ne yooyu respecté la parce que samedi la ñu war a génnee diggante samedi ak léegi négociation xaj na fa. mais li ñu gën a ñaawlu mooy ci diggante bi ba épuisement délai 48 heures yooyu dara amul bu dara amoon te ñu wooñu ne ñu carrément ne kat woo nañ agence ba dinañu régler problème bi ñun ñii duñu génn ñun nag ñu naan ndab lu bu feesee tuuru lu ëpp nag tuuru ñun dañoo sonn moo tax ñu def ko c'est une première suñu prédécesseur yëpp dund nañ ko dañoo muñ ba dem ñun nag mënatuñu muñ parce que dañoo gën a bari lim bi daa gën a bari lu ñu doon ñaan mooy étudiants yi gën a bari ci commune bi bari nañu nañu réagir. étudiants yi sonn nañ. étudiants yi sonn nañ. kon loolu la moo taxoon ñu génn fii di xamal suñu papa yeeg suñu yaay yi ñi nga xam ne ñoo ngi fii. jàpp ne ñun kat ñu ngi temps de très bonnes conditions suñu yéen newul woon sañu wax leen li ñuy dund mais lu gën a pire ñu ngi koy dund di ko muñ kon nag nañ ñu taxaw sonn nañu jërë jëf KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te